à l'âge de 15 ans moom lañ ma a moom ma njëkk a formé ci mécanique moom mi di la mécanique continuer la boobu école laa bàyyi ba xayoo ko a jox moom bu fàttali ko sama papa jox ma ko ma quitté à l'école ñu ne ma la nga fi bàyyi nga nekk di yàqu ñoom moom mu jox ma ko mi ngi nii syndicat boobu ak léegi moom seet na léegi daanaka tuux nañ ay lu ma cinquante tuux yoo xam ne ko mënu fi nii lool bi di ko moom ak moonu ak wiñ euh, naan lajjak ñoom ñoo boole ak gars yi waa Deva président bi ñoom dugal ma formation à sa fin dans la force lépp jaar naa fi ñoo ko jël seen xaalis fay ko ma jógee foofu ñëw di former ay xale fii ñu ku ci nekk am na ay xale yoo xam daanaka ak at lii ma lakk man damaa lakkale ñii ma wax na ma ñoo lakkal ñu former xale yi boobu ak léegi nag instant bi gisuñu fi kenn koo xam ne jàppale nañu loolu xëy na peut-être keroog bu ñuy jaaxal suñu bët xonk dañoo yoroon gaara di fay chaque mois di fay ñun ñuy wax ne am na ay bureau yoo xam ne dañoo nekkoon ci kër di fay far waa koñ ba tamit am na loo xam ne àq la dem nañ ba xajatuñ fa ñu génn foofu déggee pir ñi tout récemment fi dañuy fa sàcc ay valeur de 6 millions yoo xam ne ñoo corrigé gars yi kenn seetaan nañu ñëpp ñoo fay ko ñu waxati ñu lakk amoon fi amaat fi mais sonn nañu bu nu xëyee lu xale yi di lekk ñoo koy lijjanti li xale yi di ay outil ñoo koy lijjanti mais sonn nañu su ma xëyee du ma nelaw su ma tëddee du ma nelaw parce que valeur bu toll nii c'est des nga tëdd ko teg ko fi ay borom yaakaar la parce que li tax leen moo tax ma ñëw jàng ko ko tari fii amuñu nag ñu bari dañuy jiñ ay sàcc xam nga ma ko waral parce amuñu recasement bu baax pourtant fii école la tout récemment bi école ubbi am nañ xale yoo xam ne sept xale yoo xam ne ñu ma leen dimbali nañu a dimbali dañu sonn dañuy tëdd li ñuy jàng dañu ko war a sotti ci xale yi kii li mu jàngoon jox na ma ko mais dama ko war a jox keneen keneen jox ko keneen mais tey ji bu amee fii pour nit bàyyi nañu mécanicien yi sumbur kalaan duluñ ñii di ay caakru pièce lañ mm. non métier maa ngi yàqu bu ngeen dégg dëgg métier bi mi ngi yàqu te man def naa formation te dafa métti métier maa ngi yàqu waa ah. bu ngeen dégg dëgg métier maa ngi yàqu parce que fii ñu ko fi mën damaa def machine jàngu ma woon école parce que dañu maa teel formé nañ ma ci machine formé nañ ci voiture électronique formé nañ ci lépp mais sa laa manqué doole ak appui boo feebaree yaay faj sa bopp boo jaaxle xaw foo jëm boo luyee dañ lay génne mais lii ba kañ bu xol sa laay waxee parce que oto jàng bi muy lakk démb damaa toog samay rog ma ñu tuur mënu ma ci dara mënu ci dara li ñuy tàllal loxo nag mooy ministre de la culture xam ne ay doomam ñoo fi ne gis nga ministre des sports dama ko naw parce que ni muy def ay mbërëm damay jëkk jëkk xale yu bëri sax suñu leen ñaan la jàngal métier am na ci ay image yoo xam mbëri ji ñoo leen jàngal métier yu dem gis luñu xam ne mbëri ji man mënumaa bëre mais dama jaaxle xam nga xale yi laa taxaw taadal leen di leen jàngal ay métier mais amoo kele amoo subvention am boo feebaree faj sa bopp at li àll bu mel nii ak ay xoola valeur oto ñaan moo fi mais sonn nañu Novamente, Cicó.